seraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa ancien ministre ba Serigne Mbacke Ndiaye ca ndaje mbër teewe woon moom Serigne Mbacke Ndiaye conférence de presse mbër ya nekkoon am na kàddu fa yëkkati woo moom la sunu làmb xëy fësal wax na ci CNG bi ñëpp njortoon ne moom la ñu koy dénk wax na ci huis clos bi wax na ci Moustapha Gueye ak Mbaye seeni jamono wax na ci combat bu mag bii di dox ci diggante Ama Baldé ak Modou Lo moom Serigne fi nekkoon ministre ca jamonoy Abdoulaye Wade journal ba la mu xëy a ngook li ko dale ca Iba Mar moom Serigne Mbacke Ndiaye fu làmb am sol na daalam fekki ko ba ñu ko laajee ca tudd gañ ko doon tudd ci kan mooy remplacer président Alioune ci bopp CNG moom la mu xamle mooy mëbétu amateur yi képp la woon du man Serigne Mbacke Ndiaye maa mos a ne damaa bëgg a nekk président CNG nit ñee xooloon ba mu neex leen ñu tudd sama tur ñépp xam nañ ne bëgg naa làmb te dama koy fekke ñépp xam nañ lu làmb nekk maa ca waaye doon ki ma doon amateur rek doy na ma sëkk daa Ndiaye trancé na ca la mu xam le mooy dañoo war a identifier ba ku ca génn ci diggante wax dafa xam ne ñaari ngi ni nekk ay frère te wute lool ci bëre Tafa la mu am Mbaye Gueye amu ko Mbaye Gueye la mu làmbool Tafa làmboowu ko Moustapha Gueye était plus doué sur le plan de la lutte pure bu dee ci làmb ak technicité Tafa Gueye nañu ne nekkul ci Mbaye Gueye waaye sañ-sañ bi nekk ci Mbaye Mbaye Gueye ko wax làmb wax woy wax bàkk wax spectateur nekk seetaankat yow wax ñay tàccoog ñay bàkkoog ñay maye seeni xaalis mbooleem loolee di gunge làmb boo ko génnee ci làmb làmb ñàkk xorom moom la mu jàpp mooy wii bu ñu koy def ñàkk solution moo ko waral ba ñu ko laajee ci affiche yi ñu taxawal diggante Ama Baldé Modou Lô Boy Niang 2 Tapha Tine Bombardier Balla Gaye 2 Eumeu Sène la mu xamle moom Serigne Mbacké Ndiaye mooy combat bi ma ci gën a mooy diggante Ama Baldé ak Modou Lo bile combat bu rëy la combat bu mag la combat bii sax laay dippe le combat du dañoo nekk ñaari mbër yoo xam ne la aju seen ginnaaw dafa bari ñu gëm seen bopp am courage mën a bëre bu dee Ama Baldé mbër la moo xam ne ni dafa gëm boppam dafa am sañ dafa ñeme li muy def man bu ma demoon bay amaat beneen mbër sax Ama Baldé lay nekk waaye li ma bëgg ngeen jàpp daal mooy bile ko yeeg médecin CNG yeeg entourage lutteurs yi ñoom ñëpp lan war a testé képp kuy acteur nekk ci làmb ji war nañ laa testé ba xam toutes les personnes qui vont entrer en contact avec le sportif lui-même doit être testé waaye nag fa wax ja nekk mooy kii pour prendre en charge des tests Covid test yi ana moo koy jël en charge rax ca doole ne promoteur bi bu dee état ndàmp na ko bu dee am na sponsor ba noppi am télé bu mu signal am yeneen i partenaire nag mën naa distribution des fonds état bi li mu jël nar koo jagleel làmb ñun kenn waruñu caa ëppale kenn waruñu caa jiitu kenn waruñu kaa xañ gannaaw nag dafa mel ni ci tànku xañ ñu ko lañ jëm ñun dañuy porter combat bi daal defu mars ci la ñuy booleem ku nekk ci arel si di ci woo manager yeeg coach yeeg mbër képp koo xam ne làmb ñor ñu ngi lay woo ci suñu combat bi ñëwoo ancien ministre Aly Ngouille Ndiaye ci seen combat ba mooy jibi Ama ki mbokkam moom Ama Baldé ma muy dippe boppam waaye Ama Baldé it gàcce nga alaama jërë ngeen jëf mbokk yi li moo nekkoon li gën a fës ci yéenekaay bi ñu leen jox dig daje ba ëllëg incha allah